part de Yaayu Samb nuyu nañ bu baax a Diouf madame Mbaw Kassoor ak ki nga xam ne mooy madame Baye Aada Koddu Ndiaye nekk ci usine Bentali de la part de Yacine nekk maquilleuse ci Télé Futurs Médias Oulay Ba chéri Cheikh Camara Parcelles Assainies unité 8 maman Amika Yaayu Dieynaba Ba ñu naan ko Diez moom ci boppam mooy wax grand clé day di ñoom ñëpp et euh, dédicace à Anna Diaw Sala ñoom mami ñoom Oumy Diaw salon de coiffure boobu ca Fatou euh, ak Binta ña nga ses enfants Marietou ak Moussa de la part de Kara mu leen di nuyu mbokk yi nag dañuy seeti Ablaye Wade moom ci boppam ma ngay préparer dernière tàggatoom ak ñi nga xam ne ñoo responsable politique yi nga xam ne ñoo toog suba nag incha allah ci lay jël vol te suba bu soobee yàlla dina leen indil départ ba ca buntu kër ga ba ca biir avion ba na la ko Ablaye Wade dikkee kon nag dañu seeti góor gi ak ñi nga xam ne ñoom ñooy ay militants ma dikkee ma dikkee ay ca yaakaar naa ne tey moom bagage tàmbali les bagages la ok jërëjëf ok waaw ah, ma dikkee. Ah, mu ne lépp yemb na takk naa bagage ba pare na ah, démbale. waaw du kon yaa ngi waaj démbale waaw démbale xoolal les militants sont wax leen ko góor gaa ngi ñëw ñu commencé lamb yaa salaam. waaw waaw. bu baax a baax. jërëjëf jërëjëf eh bien jërëjëf maa ngi wax ak ma dikkee léegi rek ne ko décision la boo xam ne maa ko jëlal sama bopp li ma bëgg eh bien mooy bàyyi réew mi eh bien dem noppali ko France ba affaire yi calme eh bien ma dellu si moo tey eh bés la boo xam ne dana metti trop sama diggante ak ndax tàggatoo bi nga xam ne eh moom laa am li ma bëggoon li ma bëggoon eh mooy ngeen fexe ba xam ne bàyyiwuma leen fi pour ngeen seddal na ngeen tàngal di tàngal eh ba mu xam ne ne góor gi dem na waaye góor gee gi dellu si. eh li nga xam ne yaakaar naa ko. eh li nga xam na tamit bëgg naa ko ñu def ko mooy ñii nga xam ne ñooy responsable di ñoom Madické Omar Sarr Adja Adja Waré Sarr eh bien responsable yi ñoom Awa Diop ñoom ñëpp Madické looy for looy for kalpe pochette war doon pochette war doon ko defee ko defee ñu xam ne yéen dama leen fi teg pour ngeen continue la bataay du ñu daw du ñu dellu ginnaaw on va barki démb démb rek maa ngi xool Idrissa Seck nee na ma am na ñoo commencé lekk rakkal rakkal ku ko lekk suufu géej nga jëm bu suufu géej gi jeexee nga dem ci suufu mara de taan yi parce que mooy wane nag le peuple a faim le peuple a soif le peuple a faim moo tax bu leen bàyyi eh bien di gën a dooleel góor gi naan góor gi moo bari doole. góor gi moo bëri doole. te li ma bëgg li ma bëgg. eh li ma bëgg ngeen wax ko ngeen def ko mooy na xam ne dem naa waaye damay dikkaat kon bul dem kaay waay li ngay waree ngi góor gi ngi ci ñun bul dem. kaay waay li ngay waree ngi ngi ci ñun bul dem. kaay waay li ngay waree ngi ngi ci ñun bul dem. léegi moom bu déggee ne eh bien bul dem kaayuwaay li ngay war ngi si ñun bul dem kaayuwaay eh bien dina xam ne man dinaa ñëw waay. dëgg waaw kon ma dikkee. waaw Omar Sarr Adja Wore. Adja Awa Diop les grandes dames dénk naa leen parti bi. dénk leen militants yi que dara tàngal te moo sañoon yéen ñëpp moo ñëw fekk leen ci kaso bi ma génne leen na yëpp yëngu. ñaanu ñaanuñu ko yàlla maar day taal maar day taal ma diggee ma diggee xaar ma faq ci samay nopp sax maar day taal déedéet déedéet déedéet non il faut que dañu nekk on fait de la politique on n'est pas en waaye nag góor gi réunion réunion lañu nekk dañuy wax rek ah, nga baal ñu nag waaye mën nañoo politique nag waaye kaso nag moom ci boppam góor gi dafa neexut nag barke sëñ Saliou xam nga kaso nag moom qu'est-ce que tu fais yow les gens parlent tu fais des qu'est-ce que ah, waaye ñu wax kaso kaso rek mooy que Madikès tu as le, tu le droit de dire ce sentiment qu'est-ce que tu en ah moi je pense que ni y a d'autres choses plus plus plus plus importantes que kaso on peut discuter tête à tête waxtaan ndax dañu xam ni waxtaan ci la lépp xaj barke suñu saa Madikès on peut pas continuer di waxtaan di dialogue jusqu'à présent il y a pas de porte d'ordre il faut qu'on attaque on cogne et on gagne góor gi man yooyu moom xanaa ñu ci rek waaw ñëngu rek waaye góor façon moom waaw waaw xanaa ñëngu waaye mënut ta ñàkk waaw vraiment vraiment ma tuuti li tax Macky Sall xam na ne man du ma ñëw ci yéen la ne eh ko si. waaw. bul dem kaay bul dem kaay li ngay war a liggéey bul dem kaay li ngay war a liggéey bul dem kaay li ngay war a liggéey bul dem kaay li ngay.